ça, ça, ça, ça répond à nous ce que l'on ba ñuy doog a commencé une tournée à l'extérieur dañ doon voyager avec une photo de Nelson Mandela bu toll nii. ah yéen da ngeen doon yóbbu photo Nelson Mandela. gën <laughs> a xam ndax tubaab dañu doon yaakaar suñu papa c'est bon ñu ne ko mais après si le concert on expliquait qui boobu. xam nga Nelson Mandela ba boobu fekk mu ngi doog sax génn. Mhm. mu ngi soog a génn en prison parce que ce qu'il la moo tax. Mhm. te ñun ba ñuy woyloo Nelson Mandela boobu Nelson Mandela mu ngi prison boobu ñu ngi nekk xale. Mhm. ñu ngi nekk ay xale yu ndaw yàgg na ñu ngi woyloo Nelson Mandela ñoom Benjamin Moïse nga xam ne dañ leen mujjee rey et moo tax euh, message yi ñuy porté yàgg nañ ko porté. quand Ismaël Lo avait sorti cette chanson ñun c'est normal daf ñuy marqué parce que bañ nekkee xale ñun ñu koy woyloo et ça c'est c'est des messages yoo xam ne xam nga koo gis dafa am ay héros mënoo nekk sénégalais nga am ay héros français mhm. wala nga am ay héros américain amul sens ñi nga war nekk say héros ce sont des sénégalais ça c'est vrai waaw ce sont ñoo war ñoo war a nekk ce repère et ces repères là ñun ko perdre parce que bu ñu ko perdre on perd tout alors à partir la musique sont un combat euh, pour que les populations puissent retenir les, les noms et les visages de ces c'est important. Alors, euh, bu ñu ñëwaatee un peu ci seen euh, paysage musical parce que li ngeen woy bari na mais it yi aussi bari na je pense que à partir il y a aussi une autre chanson. devinel bi ma bëgg a wax rek. Faama wala Ndeye wala ban. Faama. Faama waaw te <laughs> tey ñaari invité laa am. ñaari invité tonton Djibi ak guitare. ko wax c'est dans toutes ah kër goo dugg am na Fama euh, bañ ko créé aussi Fama daf ñoo topp. parce que fu ñu tourné ñu ne sama yaay wala sama sœur sama yaay wala sama sœur sama yaay wala sama sœur am na ñoo xam sax dañ yaakaar ni dañ ñoo wax. Mhm. dañ ñoo nettali ñu. waaw. ñu ba dañ dañ am am nañu si amoon ay problème yow yaa dem nettali frère Guissé li xew ci ah gis seen bopp loolu mooy woy nag parce que woy boo ko bindal sa bopp ki koy dégg moo ko moom dañuy dégg ko <laughs> dégg moo moo tax danga koy danga koy laal ñun quand on écrit ci écriture bi d' abord la mhm. ñuy toucher nit ki dañuy seet fan la fan la ñu mën a laalee nit ki. c' est à dire nga xam yow ñan nga bëgg a toucher. ñan nga bëgg a toucher. te cible bi te cible dañ ko laal. Mhm. parce que cible dañ ko laalee ci tournage bi la ñu xam ne laal ci tournage film bi d' parce que xam nga ñett moom. Mhm. dafa am dafa am écriture bi. li ngay wax. am musique bi ba pare am image bi ñetti affaire yi boobu la maintenant ci biir écriture bi fi ngay dooree foofu ngay ciblé maintenant musicalement boo defee sa écriture ba pare nga ne musicalement kan lay ciblé encore ñun suñu liggéey loolu la parce que booy ciblé sénégalais kese ak ngay ciblé international du benn dafa am boo leen war a mën a jox mhm. moo tax suñu liggéey métti ba pare maintenant nag nga ñëw ci image bi en même temps image war a jouer mu nekk ñetti affaire moo tax ñu ba ñuy tourner Fama dañoo ñëw benn réalisateur nañu bon on va vous montrer à Dakar ñu filmer leen ngeen dox ci mbedd ñu ne ko non on veut pas de ça. Mm-hmm. on veut de l'émotion. léegi ba ñu tourner fili euh, Fama euh, ba ñu toogee ki doon réaliser jigéen la. Mm-hmm. ñu envoyé benn réalisatrice mooy réaliser ba xale bi ku mag yi ba yaay ji génne kër gi. xale bi jël ñaari rakam taf ko fii moom moo commencé jooy. ci tournage. tournage man a jeex na man dañ ma fekk man xam dama doon julli xam nga ñu ne ma jiw kii mu ngi cooy ah. ñu ne jaar ma ko maa ko sax ma ñëw ne ko jaar la lan la mu ne na sama la xalaat. bu ma waxee loolu nag ma ne gars yi c'est bon moo tax ba affaire bi génnee paf taxawul. parce que ça qu'on cherchait de l'émotion soo ko mënul am parce que ça dégage maintenant bu dégagé woo ci image bi xam nga loolu image bi la. bu dégagé wu si texte bi dégagé wu si c'est important parce que lañ doon dañ doon ñëw fii. pour le plaisir des téléspectateurs avec Djiby frère lycée. quejarme un día. Me explico cómo hacemos hoy. Moussa fii lay commencé xaw fii lay commencé moom femme mooy la commencé fii la commencé ñu naan xoolal. bi dara doonu amul lu mu gisul amul lu mu dajul ba mu si yàlla doon mu ñal borom këram ba mu toogee mënatu ko mu dem ma ni faama dem naa faama dem naa. wuti naa kan ka mu ne woon wet naa ani fala fama dem naa fama dem naa kan ka mu ne woon wet naa kon fama mooy ki nga xam ne dafa muñ te yaa njabootam faama mooy ki nga xam ne dafa muñ teya nangoo uuf njabootam ku ñëw fekk muy baax dem fekk muy baax del si fekk muy baax dem hee dafa baax hee nga ni léegi da ngay woy fi yaa xoola faama Ah, fama fama fama fama dem naa ah waaw waaw xoola fii dañuy ne nii ma ne billaay suma sañoon man nii fama du dem bàyyi fi njabootam billaay suma sañoon man nii fama du dem bàyyi fi njabootam ndax jëkkër ci nga xam ne mënul talaale ay jabar dëkk ci li ko neex xamul yàlla xamul yàlla eh. lii ah. lii <laughs> samay bët yaa ngi jooy sax ndax <laughs> ne bu noonu daal parce que li mu li mu bari non mais non mais tonton Djibi man dama eh, wax ak wax tonton parce que doomu màgget loo quoi non non non non non néew ci fon voilà. <laughs> dafa jub sax mu jeex quoi waa tontu ñu ngi. yaa ngi koy dem si yi su ma ko waxee mu ne ma ne ma jabsoo. <laughs> mu jeex parce que mu nee jabsoo mu nee père jaabi ak jabsoo bokkul. <laughs> na tàkk. mais mais tonton ah. bi dama jàkkaaroon yow pare nga ci musique mais. pare. mais ji bi tey nga gën a garaaw yow. bon mm, tu sais musique xam nga y a des yoo xam ne. Mhm. da jël sa retraite c'est comme le football parce que c'est trop physique. c'est très physique le football le sport je veux dire. Mhm. tu vois le sport en général c'est physique mais ñu lan mooy fonctionner euh, nous sommes des penseurs nous sommes des créateurs sa xel mooy fonctionner sa cerveau mooy cerveau du magget parce que cerveau da nga koy tàggat. dëgg cerveau yow yaa koy tàggat. Mhm. muy dépasser ay ay niveau nous sommes dans pas l'imaginaire mhm. mais nous sommes euh, dans l'abstrait c'est un travail abstrait d'abord parce que la mhm. création elle euh, c'est un travail d'abord abstrait à partir du néant tu crées quelque chose à partir du néant tu écris nga bind loo xam ne dañ koy jël def ko ba mu nekk euh, ba muy représenter benn image c'est ça le travail de l'artiste c'est même pas seulement les chanteurs mais l'artiste c'est ça c'est la créativité waaw justement quand on parle d'artiste damay def benn benn benn benn benn transi transition ak euh, nouvelle génération bi tey gisoo ni que je dis pas tout le monde parce que y en a qui vraiment font de la bonne musique koy teg ci yoon mais gisoon ni que li des mooy bind bi parce que je pense que bind bi moo jiitu lépp xale yi tey dañuy ñëw rek improviser commencer di way est-ce que aujourd'hui waruñu commencer par le commencement teg ci yoon parce que way aussi dafa am yoon waaw c'est que xam nga xam nga aussi bon doo leen mën a wax dara parce que nous sommes dans une pays boo xam ne problème de formation rek dafa am. xam nga instant yi ñu tool ñun ñun nous nous agrippons sur nos droits sur le respect de nos droits. Mhm. maa ngi ni su ma jógee fii la lay toppatoo ji affaire syndicat euh, des acteurs culturels. Mhm. tu vois parce que formation bi dafa nekk loo xam c'est important. Mhm. moo tax et puis nous sommes dans un monde boo xam c'est virtuel alors dafa gaaw. au départ da ngay gis télévision ñun ba ñuy génn RTS moo fi nekkoon boo génnee RTS nekk star. booy man sa caméraman bi lay waxal dama teel nekk star <laughs> <laughs> moom lay tooñ quoi. xam nga euh, alors euh, dafay génn dañ koy select lay naan sélection dëgg dëgg dëgg dëgg lay naan ce sera très select balaa balaa muy génn. waaw si si parce que benn télévision benn rajo à l'époque tu vois mm-hmm. alors comme ni ñuy wax euh, il faut nga mbapat il faut nga raam il faut nga il faut ngay dem de pour découvrir il faut mu jaral la ko mooy ci sa dërëm sa poche te xam nga kuy sàkku ji xam-xam doo am dërëm parce que dërëm dërëm dërëm bi mooy financé yi pour nga sonn ci nga jàng nga côtoyé ay nit mais léegi on est dans xam ne tout va mhm. que ku nekk sa téléphone mun nga ci def lu nekk mun da ngay siiwute rapidement mais maintenant boo amul bagage boo liggéeyul boo kotaalu ay nit di nga am succès léegi léegi mais succès bi après day rëcc parce que dafay gàtt day dem di am succès dinañu dégg mais taf lay def day dem

ay jegal nit ñi quoi nga jàng ñu ñëwaat bi jox ma beneen chanson bu léegi def on va aller un peu plus moderne avec les jeunes. Mhm. parce qu'il faut le dire parce que euh, chaque chose a sa génération. c'est qui s'exprime. Mhm. instant bi on on a la nouvelle génération euh, qui essaie qui cherche qui se cherche en même temps mhm. parce que boo xoolee ñoom ñëpp dañoo naviguer vers la musique euh, nigérienne. c'est pas. waaw qu'est-ce comme ça waaw afrobeat mm-hmm. ñun je me rappelle ñun ba ñu commencé on faisait de l'afrobeat ok ça fait longtemps boobu joué bu nu guitare afrobeat laa doon def sa à dire que lu ñëwaat la l'afrobeat moo doon numéro moo doon moo doon musique africaine quand on parle d'afrobeat c'était ça parce que moo ci génn l'Afrique moo ci sa particularité moo tax on va revenir un peu un moderne man da may tegal fu mu nekk nii da may defal miyaa gis nga may tegal Mia Guissé. waaw ndax Guissé na sant wala. waaw sama jarbaat la sama jarbaat la sama jarbaat la.